indi quelques leral c'est ay socio yoo xam l'ancien ministre Thierno Assane Sall daf ko def ci ben livre bu mu le protocole de taxo ñu fi pour waxtaan ñun depuis ko gouvernement ba légui limi def di wër télé yi di wër ci radio yi di le président Macky Sall di nguur gi fi le premier ministre ñu jàngat tey li tax ñi nga xam ne dañ ko li tax ñu génne ko ci nguur gi moom mooy défier bu défier l'autorité ñu signé loo contrat mu bañ te ne si ay waxam contrat boobu intérêt du intérêt Sénégal ñu gis ne si kaw contrat boobu moom si suuf moo ngi doon aw di jéem a négocier ak benn entreprise du Cosmos te bu ñu xoolee pourcentage yi nga xam ne tey la Sénégal di am ci contrat bi muy signé ak Total ak bi muy am ci Cosmos dinañ xamné kon intérêt bi signé ko ak Total kon ñu japp né Thierno Alassane Sall li wax non seulement ay sos la mais mën nañ japp né aussi lu muy inventé la pour créer personnel mais day faté né mom avant la euh, le président Macky Sall kenn xamul woon kuy Thierno Alassane kon tay bu démé ba xam ko c'est le président Macky Sall qui l'a créé et dépoussiéré au lieu koku délo ko njukkal mu taxaw wala jàmbaarloo ak mom wala jakarlo ak mom te lool yépp li koy indi ñun wa Thiès ndawi Thiès liñ ci gën a mën a firndeel mooy Thierno Alassane Sall moom mbiru boppam da koo doy te dafa rëy te sax si diine dañ naan nit boo rëyee doo dugg aljana loolu moo ko sonal jàpp na ne kenn waru koo jiite jàpp na ne moo ëpp ñëpp xam-xam ba tax na mu ne génne na sax ab livre bu mat 500 pages en un laps de temps kooku ñu xam ne loolu ay sos rek moo ko mën a kii parce que bu fekkoon am na sérieux jàpp naa ne livre 500 pages xaju fi diggante boobu ak léegi. beneen bi mooy ñu mu mel ni tamit ku xelam matul parce que bu xelam matoon mune opposition la bokk élection yi passé dafa dem ranger aussi opposition dem parrainage matalu parce que siiwul kenn xamu ko bi ñu ko retenir jàppalewul kenn si opposition bi moy firnde daal dañu waxoon ne wóoluwul kenn moom jàpp na né mom rek mo wara avancer lolou nak nit ku soxor ku bon ku yéenewul kenn dara mom moo koy def benen bis topp mooy depuis quelques temps gis na né euh, aduna bi yëpp dafa am lu dal sen kaw muy mbas mi di coronavirus ñu gis né opposition pouvoir ñep ànd nañ joxante loxo ngir xeex mbass bi ngir intérêt population yi mais depuis bob au niveau national comme au niveau local ici à Thiès amul benn benn benn activité wala benn geste bo xamné ne gis nañ né Thierno Alassane Sall def nako envers la population à travers son mouvement la République des valeurs amul benn activité buñ ci def ngir dimbali ñooñu kon kooku bu né nit ñi ñoko soxal sénégalais ñoko soxal day wax lu ko neex benen bi moy le président Macky Sall taxaway bi nga xamné ne ko ci coronavirus bi pour relever euh, l'économie pour pour relancer le niveau social des populations ñu xol ko ci octroi denrées de première nécessité yi ni nit ñi ci courant bi ni mu nit ñi ci ndox mi ba crise bi, mujjé am wali ñu gis taxaway bam fa am koku bu nee ne askan bi moma ñor ñun war nañ japp né li mom mo nek Thierno sal nak jamono ji ñu toll li koy xamal moy non seulement président amul temps parce que lui émerger Sénégal depuis ban ko falé ba légui si la nek si stabilité en Afrique et au Sénégal si loolu la nek ñun ñi nga Thiès ak mom xam bu baax lan moy nous bi mi nek Nous parti bu nous fi ay jaxassé ay nous ay nit ak Nous mu tax sos na xamné lepp def ñun taxaw pour jambarlo ak mom sax nous Bobu ñu naan ba semaine passée jeunes mais pas plus tard que avant-hier amna deux ñoo xamné ni bayyi waat nañ ko ñëwaat biir APR parce que xam ni ki xamul fam jëm ku mel non nak ñun ay waxam duñ tardeel dana nak dindu tuuma dafa baax mom motax ñu ñëw di indi yenn élément de réponse yi waaye Thierno Sall na xamné Sénégal yi dégluwuñu ko taluñu ko amna d'autres priorités du moment moy xol nu ñuy génnee population bi ci coronavirus bi xol nu ñuy defee ak la relance de l'économie xol nu ñuy dimbalé askan bi socialement kenn ku ci nekk am taxaway bu baax ba mën a yoraat sa njaboot ku nekk nekk si jàmm ak si salaam looloo taxoon ñu ne tey dinañ fi daje indi ay éléments di leen gërëm yéen ñëpp di leen sant